kon lépp moo ko liggéey kon li nga defar sëñ Touba ba pare ñu tudde la góor yàlla Cheikh Mamadou Mourtada mu tasaare sëñ Touba si àddina bi li nga defal rëy la lool te dégg naa da nga fas yéene wër Abidjan sëñ Touba fépp lañ ko war waxe ku bëgg bindee fii rek da ngay fexe ba yóbbu waxtaanu sëñ Touba ñu dégg ko bu dégg sëñ bëgg ko su soo ko bëggee dara dootu la sax xam naa ni li ma defal awak tuba war tax moo tax lu xaw turu politique di may ñëw dama ko si dégg dama ànd ak samay mbokku taalibe sama directeur de cabinet sama chef de cabinet sama assistant ñu jógee Dakar sama delegasi képp koo xam ne dafa fes si politique dama ni la baal ma ma def tëjoo ndax ñu si baal ma gënal adna si li sëñ Mountakha moom ma ko waxal nee na bëgg sëñ Touba nee na bëgg sëñ Touba moo gën àddina bi barke dem wax naa que ni soo ma ni bu ma ñibbi Dakar dootuma ñibbi Dakar bu ma politique lu ma mënul fekk Touba danaa ko wan gannaaw ko sëñ Touba ma gënal àddina kon li ma defal xam naa ko boole nag nga jël tudde ma bésu soxna ku ma bëgg sëñ Tuubaa maa ngi waatal mbooloo mi néew na ma tëdd si la te ñaanal ma soxna jaara moo tax ñu am sëñ Tuubaa amuñu fayu soxna jaara moo soxna jaara lay jaar foofu di ziar soxna yi nekk yëpp waaye tàbb si soxna bali ma taxaw moom bàyyi faalu soxna jaara dama xam suñu moom dafa jaay njuréel ci jënd ka taalibe am na ñoo xam ne màggal moo leen yóbbu Porokhane wala soxla waaye moom Porokhane lu dëkk jamono dafa toog ba yàgg saa ni damay dem toggali xale ya nekk Porokhane bàyyi lépp dem toog Porokhane dajale terang yu bëri dafa togg ay fan di leen berndeel kii taxawaay bu rafet bi taxaw mu doon nag soxna jaar jooju réew tax sëñ Muntaxa boo ko gërëm yóbbante ma ngërëm si ko waaye dama lenn benn jafe-jafe rek la am mooy dama koy wax mu bëgg di noppalu di texal laxasaayam te man ma si dara moom fu mu toll day bëgg di sonn di sonn rek nii la ma ko waxee kon la ma la doon ñaanal di la ko ñaanal toujours am privé maa ngi ñaan ma dal liggéeyam nga Cheikh Muntaxa yaa ngi liggéeyal sa maam Soxna Jaara

tey Sëriñ Tuubaa fu mu jaaroon ñu ngi koy màggal da ngay seet weer wi septembre bi rek konte na am na juróomi màggal yoo xam ne jaar-jaaru Sëriñ Tuubaa ñu ngi tàmbalee fan ko doon àttee si biir palais gouverneur ñu ko bu ñëw fii ñu jóge fa dem julli géej gi jóge fa dem ñetti fanu Ndakaar yi ak yeneen i màggal yoo xam ne am na nga xam ne Sëriñ Tuubaa yàlla fay na ko am na ndam si tubaab bi am na ndam si ñëpp kon lii ngay def si loolu la bokk ñu ngi dellu di siyaar kilifa yi fi nekk yëpp te di wax ni ñun la sëñ Abdoulaye waxoon rek moom la doon tudd sëñ Abdoulaye dafa doon yóbbante mooy jàmbaar dafa jëkk wax sangoon ni ka mosu gis ko ko président sunu bàyyi daf nu wax ni ku nekk sa gannaaw teg bu buntu bu seytaane ko ci am laa ko wax yamati fofu ni mbirum dama la yobante demale ko si abdou djou baye bala nga koy jottali ngërëm li wax ka ñeent yi defal ko gulu sëñ tuba yaakaar wóolu doyloo bëgg ragal defal ko gulu sëñ man ma dal ngeen men jërëjëf jërëjëf sëñ Malike moom mooy parewu journée sox maam jaara moom pare la bokk kon ñu ngi koy jaajëfal waxtaan bi am na solo xol yi tooy na ñu ngi koy sant bu di ko ñaanal moom it gudd fan déwén ba gën a mën yoonu murid yëpp jërëjëf sëñ Madi Gueye ñu ngi lay sant bu baax a baax